di doon yittey ñëpp donte am nañu ciy tendefal di ko tànqamlu waaye bu ñu demee ci Sénégal ba xalif général Kuli Tidiane jël maskam def ci kanamam ba mënuñu ko xàmmee ba ñu koy bloqué fële ca l'hôpital principal eh, fa ñu doon nangoo néewub Mansour Kama mi ñu duppee way juróom wu tedd wa di Serigne Mansour Sy Bal mi nga gis xalif général Kuli Murit eh, di kaalaw ba ay gëtam dong ngay seen eh, mu teg ci jukki ci jibaam lu toll ci ñaari téeméeri million def ko ci xeex bi ñeel corona njiitu Moustarchidine wala Moustarchidaat di Serigne Moustapha Sy ñi naan wopp si dal na ko ay taalibeem di ko weddil ba ñu yegg ci ba ñu naan am nañu caxat caxate yéen kaay ba ko bind di les ko tojate seeni i machine du ma fi nekk nag di lim turi kilifa yi mbas mi yóbbu ndax lu ne fàng kenn du ko jeex fu ñu toll di dégg Serigne si Sy Mansour di sàkku ci président de la république ak ministre de la santé ñu wax askan wi dëgg dëgg dëgg gi la ñuy sàkku xeet wi xam ko te ba fi furaas ñu mën cee njorte ni am na lu ñu ñuy nëbb te nëbb gi li mu mën a jur musiba la ndax mooy ñii dañuy gëm feebar bi ñële di ko weddi te bu yàggee ñëpp ciy loru bu boobaa lu raw mbas mu naan xës ci suñu kaw téye nañu koy yóbbee yàlla nañ ci yàlla musal amin amin ak ñàkkin wolof njaay ne pas-pas moo koy atte ci jamono ji ñu toll tey covid 19 dikk wër àddina bi wërngal këpp réew mu la ci ëpp pas-pas ak dëggu moo la ciy gën ay résultat te fi ñu toll tey euh, ci Sénégal li koy firndeel ci ne njëkk fecc taxuta mujje géew euh, ba ñu fi dooree paj mi euh, ci weeru avril jàpp mai ñëpp a ngi doon bàkku ba ci njiitu réew mi ci naan sunu réew ni mu ci doxale jombe na kéemtaan la maanaam waaye fi ñu toll tey ba réewu Afrique yu bari mën a naawal seeni roplaan wutali tugal ñun mu tëñu ticc li muy tekki bari na te day dellu ci li xalif général bi di sàkku te waa cadre unitaire bi ëmb syndicat sant bi di ko sàkku ñoom itam te moo di nañu wax askan wi dëgg fu union européenne mise à jour rek génne ci Sénégal kon nga xam ni ñoom waa union européenne xam nañu lu ñu xamul ñu ñu nekk fii ci réew mi Maroc Tunisie la ñu ubbil seeni bunt sunu réew toog di xaar wax leen ñu lu tax te yàlla tax ku gis lay xew fële ca Sowetaas ga ca l'hôpital principal balankaar yi di bagante ak morgo ba bés bu yàlla sàkk ñu jàppoo jaat yi di suuli néew yi metti na te dafay gën a metti ngir yàlla bu leen xaar ba mbas mi ëpp leen loxo ngeen di ñu beesi loxo wasalaam